fii nag bois sacré dafa doon bërëb boo xam ne dañ fi daje di fi waxtaan di fi di fi di fi di fi di fi di fi di fi créer di yaatal waaw ñuy ñuy ñuy ñaanal encore ñi nga xam ne ñoom ñoo xam ne ñoo ŋànk culture bi ñu mën ñee jàppale. defar œuvre yi technique mix technique la boo xam ne juste ma bëggoon dénoncer par exemple euh, urbanisation bi ñuy gis si dëkk bi les problèmes suuf. message bi ma la bëggoon immeuble yi ñoo ngi tabax rek di dem ci kaw xëccoo bi ci la nekk mais te tôt ou suuf ngay mujjee suul boo fi reyante ndax suuf da ngay dee fii say doom pareil tôt ou suuf ngay mujjee jarul xëccoo bi jarul reyante bi quoi. bu fekkee benn ñi dafa bëgg ñëw nag ne ay hectare maa ko moom mais coow du jeex. coow mënul ñàkk ki amul nga ñëw ne ko location ngay dem chaque mois miy fay te temps suuf saa ngi fii état yi moo si war a jàppale ñi ñi tamit tabax jox ku nekk ñaanuñu leen dañ la jox ne la lu ñuy fay na na yemoo ak gars yi seen revenu li ngay fay su location da ngay fay location boo cal da nga koy ragal calculer fekk yaa ngi nax sa bopp sax yow sa bopp xam nga ñaata la mais doo ko bëgg a concrétiser dangay ngay juste effacer ko sa mémoire boo paree nga xam ne njëgu kër la. liggéey la boo xam ne sa il faut nga am patience parce que il faut ngay enfiler di xool di régler di dindi génne xool couleur yi moo tax benn tableau sax da prend mën a jël ay weer quoi sinon yaa am ne yeneen thème le euh, flow mooy avancée de la mer mais avancée de la mer am na parité bi si la bokk ma am na yeneen yoo xam ne c'est pour divertir pour xool liy bëgg nit ñi quoi œuvre bi maa ngi ko tuddee cosaan di jooy ndax fi jamono tollu kenn umpalewul ne cosaan gone la goo xamante ne héritage am ñàkk na ko pauvre na ci jamono ndax li gën a éphémère ñu mun ko jël comme exemple mooy suñu yaay ak suñu bàjjan yi sa démb gën yee kuur yi lañ doon dëbbee xéwal yi dugub mboq lépp di ko dugalaat ci kër gi njaboot gi di ko xéwalu muy yërmandé ci ñoom ba pare am indi leen wér mais si jamono ju ñu toll kër goo dugg gën gu xar nga fay fekk kuur gu damm li gën a métti mooy utiliser tuñ ko sax li gën a yomb par exemple cere boo ko bëggee toog ñu ne demal jëndi cere nga dem jëndi cere ñëw. alors que ñun bi ñuy nekk xale dañ doon gis chaque jour suñu yaay di mooñ cere ba si mooñ boobu chaque jour da nga doon koj mooñ bi parce que am na benn suusal bu ndaw booy ñëw ñaan si pour coob ko yow xale bi. kon loolu noonu plaisir la woon boo xamante ne ba pare day créer union entre parents yi ak njaboot gi mais union boobu dañoo gis ne dafa commencé daw parce que lan. kenn ku nekk yaa ngi xool noo beroo sa benn appartement kenn ku nekk yaa ngi xool noo tegee sa man maay diw man maay lii alors que unisité bi amoon si njaboot gi démb boo xoolee œuvre boobu loolu moo tax bële ne si kanam loolu moo tax may wax union parce que union dafa sacré si famille africaine boo xoolee suñu sëy yi ni muy demee ñu ne la doomu bàjjen doomu goro bi tante bi ñëpp di impliqué wu di jàpp pour mu dëgër la dëgër boobu nag union moo koy waral li gënoon am valeur si ñun muy suñu culture africain fi mu toll nii dañ ko ñàkkal solo ba ñeneen di ko jé di jóge fële ñëw di ko jox valeur kon ñun africain war nañ xoolaat suñu bopp war nañ xoolaat suñu taxawaay mu nekk cri de cœur boo xamante ne dañ ne artiste bi à travers œuvre am la mun a exprimer wu du loo xamante ne mun nañ taxaw si mbenn bi di ko wax kon ñu ne disjoncté na mais à travers œuvre yi mu nekk cri de cœur boo xamante ne dañ koy génnee pour ñaan si xelaatu doomu aadama yi ñu xool nu ñuy sampaatee suñu aada ak suñu cosaan ndax mooy li ñuy jëmale kanam bu ñu bëggee émerge comme ni ñu koy waxee du ñu yem si Sénégal émergent parce que bu ñu yemee si Sénégal émergent dañuy taxaw si benn place mais dañ naan l' émergence africaine parce que. ko gisee bi niñ ko gisee wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla ñu ngi gis ne ñi ñu bëggoon tamit gars yi xam leen ñu ngi leen di xam li may ñaanaat encore biennale bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk biennale bi ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci off bi parce que tamit financement yi nga xam ne moom la ñu war a moom la ñu war a am pour suñu off gën a dem pour ñu gën a am visibilité moom la ñu amul waaw muy côté vernissage muy côté déplacement yenn affaires yu sew yeeg yooyu noonu dafa jot tamit ñu wàll boobu ñu ñu siy gëstu di ñuy jàppale parce que bëgg nañ ko ah, bëgg nañ vraiment offre yi nga xam ne moom la ñu jox ñu mën ko gën a développé waat mu gën a am visibilité. bu ñu toogoon tey fay di xaar rek ay financement ak ku ñu jàppale yaakaar naa du ñu egg si fii kon nag yàlla dimbale nañu ñu jaayante ba egg si fii noonu ñu gëstu ñun tamit am benn apport boo xam ne dañu ko mën a kii pour ñu mën a promouvoir yeneen artistes yi nga xam ne dañuy jaar fii ci bois sacré bi ak feneen fu dul bois sacré